duggee ci lii damaa dem ba ci moom ànd ak sëriñ seen mii ànd ak Moustapha Fall dem ba ci sëñ Moussa sama wasila ma ne ko man de Mbàkke 2006 ba nëgë ni maa ngi politique dama doon toppee rek waaye yàlla dogal na la ma doon jàng mokkal naa ko damaa bëgg a génn ci penc mi tarik ma bëgg nga ñaanal ba bu ma génnee nag njariñul askan wi doomu tax maa jug ndax bu dee politique ngir lijjanti sama bopp am naa pexe am naa relation waaye nag damaa bëgg a sama gox te ma gis na 90 pour cent ci politique yi bu ñu demee financement bu ñëwee ci seen bopp la jëm formation bu ñëwee seen bopp la jëm njariñ yëpp seen bopp la jëm jigéen ñi 70 pour cent mosuñoo bénéfice lu Macky Sall di joxe te pourtant dañ koy dugal topp ci ba sonn lan moo war a loolu responsable yi nekk ci seen ginnaaw di leen nax guddeeg bëccëg boo demee ci ñoom di leen wax ci mbirum nañ ànd ci politique lañ lay njëkk a wax mooy dañ ñoo nax ba sonn man damaa taxaw ngir doon seen mbindaan taxaw ngir doon seen interlocuteur dox seen diggante ak njariñ pour ñu ànd jëli ko man loolu dama sëñ Bass jàngal ma gëm ne politique wax naa ko premier ministre bi ñu toogee bu yàggu Amadou Ba bi ma wooloo pour ñu waxtaan ci affaire bu candidature dama ne ko man xamuma la wa ma shahidna illa ma alimna mënumaa génn di seede lu baax wala ab safar mën naa am bu ñu waxtaanee gindi ko dana am ma ne ko président Macky nag li tax ma ne bi mu tànnee ma ne d'accord ma lu neexal la yàlla dama ko lebal bor bu mu fayu ndax amul benn nit bu ma mas a àndal ci politique bu bénéficié ci lu Macky Sall di séddale amul ci àdduna mosuma dugg lañu ma jox mosuma taxaw ci benn saalu politique seen yéen ñëpp ku ko ci mas a gis na wax fekk ma may sillu wala may rang dara ndax bëgguma ku ma yem waaye diggante bi ma moom sama kàddu mën a def défendre dëkk bi ku ma toogal man jigéen ñi laay wax ak ndaw ñi ba keroog bi ñu fa jógee mu ne ma gone yi ko rencontré wax nañ ko ci xëyu ndaw ñi kon dana ci xëyu ndaw jigéen ñi ay formation ma ne ko ba ñu ma laa jàppale waaye laajuma la loo xam ne sama bopp la jëm si jàppale gi ma lay jàppale benn condition rek la mooy lu taxawu jigéeni Touba ak ndaw ñi te bañ leen a nax parce que Touba dafa dëkk dëkk boo xam ñu ne deuxième ville du Sénégal ci économie ak population amul benn zone industrie bu fi nekk bu mën a jël ay ndaw ñuy liggéey jigéen ñii boo demee ci marché bi tey da ngay dégg waas jën xolle gerte suqi ginaar ràbb njàmpe loolu rek ngay gis te 90 pour cent ci jigéen ñoo yore kër yi daanaka góor yi moitié lañ yore ci kër yi ñu doon ñoo xam ne ay jàmbaar lañ dañu jug fajar nga daje ñoom ñu jël xaalis def ko seeni nafa di dem ci insécurité ngir wuti lu ñu suturloo ngeen mën a yore kër ma am xalaat bu rafet ci lool ne pourquoi pas mënumaa jug xeexal sama askan xeexal sama dëkk di Touba loolu moo ma jox esprit bi ma mën a taxawal mouvement renouvellement pas continuité li fi baax mën nañ ko fee bàyyi. waaye li fi ab safaan nañ ko fi jëlee loolu contrôle kenn président Macky Sall am na lu mu def lu baax la mais am na loo xam ne ay rëq-rëq la aw nitam doon ko def nañ ko dégager te andi lu bees loolu wax ma ne renouvellement du ma ne pas continuer te ndax jafe-jafe boo dégg ci dëkk bi ay leader rek ngay dégg ñu koy def fii la ñuy taalantee kër fii la ñuy saagante fii la ñuy xastante fii la ñuy defal lu ne ak Touba fi mu toll ci politique ñu dem ba xalifa bi mën a taxaw aaye politique. kon ji ko jot na loolu doonul lu ñu renouveler lu ñu corriger lay doon lii moo tax ma dugg ci politique bi ma engagé lii nag problème yi bari na lool boole nañ ma ak samay kilifa galgal nañ ma lu ne def nañ ko waaye dama ne leen 2012 ba nëgë ni maa ngi xeex Macky Sall jàkkaarloo moom man awma problème mu xeex ndax ku ma xam ci ma xam waaye nag xeex day doy su ma àndeek mbooloo bëgg leen a jàppale mënatumaa daggu yet di xeex ak ki leen war a dimbali moo tax xeex bi dakk na xeex bi dakk na parce que 2012 ku koy xeex tey ji ba 2023 mbooloo topp sa ginnaaw yaakaar la te njariñ li kenn ko yor du ma daggu yet jàkkaar la yor damay naxanteeg yow ba jot ci li nga yor nu may fexe ba jot ci li nga yor nag mooy ñu ànd àndum nawle du ma ñëw jaay sama ngor ci sa kanam waaye nag gagnant gagnant lay doon nu ñuy àndee sama askan a ngi nii góor ñaa ngi nii jigéen ñaa ngi nii lan moo ci sa programme ci ñoom looloo waral ci département Mbacké ndaje mi ndaw mosu koo organiser Fallou Diop nii sama kanam ku toll ne man ci at mos am fitu organiser lu mel ni ndax dafa nekk ci ay loxo boo ko bëggee def sa leader ne la bàyyil boo ko bëggee def keneen ne la bàyyil mais jom def ci sa alal sa ngor sa lépp jug na nit ñi ñëw leen ñu ànd kenn mosu koo ñemee man ma ne dinaa ko def ndax am na lu ma gis ma gën a ci sama kanam. xam naa lu mu doon xam naa nu ma koy wute xam naa ni may def ba jot ci kon yéen laa ci yaakaar ma jàpp ne suñu àndee ci diggante bu gàtt njariñ mën naa am te njariñ li ci yéen dong la jëm si mosuma toog ak benn leaderu politique ci àdduna ndax politique ba ma ci liggéey yàgg na mosuñu ma cee may oto ma dawal mosuñu ma cee may passeport ma tukki mosuñu ma cee joxum financement pourtant nag li ma am maa ngi koy bokk nit ñi sàll yi ñu bari mën nañu lu ndaw di def ci politique def naa ko ci politique te or que yooyu mosuma cee jot benn lii laa wax premier ministre Amadou Ba moo tax bisum tey bi damay renouveler sama confiance ci président de la république bis bi mu bàyyee laa ko jàpp bis bi mu ne dematuma boobu laa mën a organiser mbooloo pour continuer di ko ja di ko jàppale kon sama confiance maa ngi koy renouveler ci moom dinaa ànd ak candidat bi mu fi teg muy monsieur Amadou Ba. waaye nag waaye nag ah, Fallou déglu leen ma Fallou man du li ngeen maa ñaan rek ma maye damaa dem ba xam ne li ma mën a maye li ma yore mën naa koo maye ma doon ko maye ndax bi élection yu jub see candidat yëpp dañ maa recevoir te mel na man ci ndaw lañ recevoir ma toog ak Mame jaaw Diao toog ak Aly Ngouille Ndiaye toog ak Birima Mangara toog ak Mouhamed Boun Abdallah Dionne sama mbokkum taalibe ñu bokk sëriñ doog a toog ak Amadou Ba mi nga xam ne moom la fi Macky Sall teg seen njëriñ dafa nekk ci moom moo war a ma engagé ngir ànd ak yéen su ma leeroon ne su ma ànd ak moom sama njëriñul bopp la damay làbbalee xeex ba ndax am naa pexe yi ñi doon xeex ñëpp man lañ doon àndal di xeex di lalandoog man ci sall jugal ñu xeex Macky Sall may takk rajo yor sama micro bii di ko xeex su ma demee ba ne nañ ko jàppale rek du sama njëriñ parce que defuñu ma dara bis bii bi ma koy waaj ñoom sëñ Saliou yi ñu ñooy sama seede dama ne leen bu doon def budget cinq millions dinaa ko ci def ndax li ma bëgg mu réussir ma génn sama alal def ko ci ànd kook ñoom di ko def di guddi ak bëccëg ñu bari dañoo jàpp ne Amadou Ba moo financé lii yaakaar naa bu ko yéegee image bii lay yéegee lii tey yéen ak moom yéen a ci même même information jàppale ko moom réew mi laay jàppale sauvé wu ko moom réew mi laay sauvé carte d'identité yi nga xam ne ay jigéen a ko moom ak i góor confiance bu nu am ci man la carte d'identité ku ne xam ne ne ak ruu la kii mooy doomu aadama nit bu ko jëlee ba ne la foo jëm foofa laa jëm muy ñetti junne carte d'identité loolu du ay caaxaan preuve la te man jiwuma leen mën naa lu ko jar dama leen wax luñ gëm rek parce que dama naan leen bi ma leen di dimbali day sama doole bopp la waaye damaa bëgg wuti doole ñu ànd jariñoo ko loolu nit koo ko wax bu dee boroomam xel dana xam ne mu wax kon Mame Mor maa ngi feddali sama confiance ci président de la république Macky dinaa jël engagement jàppale ab candidat ci carte yi ma tiim mosuma di sa mbooloo waaye nag ak condition li ma waxante ak ñoom ci laaj leen ñu dimbale jigéen ñi ak ndaw ñi suba mën na maa weñaaroo suba mën na maa retourné puisque bu ma avancé ñaari fan avancé ab diir defuñu ko bu subaa ñëpp danañ ma dégg ak ñoom mën damay xeex man na maa denc sama arum mais du bàyyi xeex man gañe nguur ak perte nguur laa yemale dara féréegewuma ci mais nag nañ amal askanu Touba njariñ te bañ leen a nax di leen gurgur di leen dugal ci ay kaar ñuy dem ak ñëw mel ne amuñu benn valeur man loolu mooy sama combat moo ma tax a jug moom laay xeex politiciens yi fi nekkoon nga di leen dégg tabaxuñ fi dara mën naa ne lu dul mobiliser ay gone ñuy saaga guddeeg bëccëg kenn ku ci nekk fat sa juróomi gone ku la tudd ju xeex loolu dakk na moo waral ma def ni ne la woon wonni na li fi nekk ñoo ko mën a sensé bu ñu gëmee suñu bopp sensé ko man boobu maa ngi tàllal loxo mboolem responsable bu politique ci département bi moo xam opposition moo xam pouvoir parce que li ma gëm mooy développement dëkk bi développement dëkk bi nag ñun ñëpp ci am responsabilité kiy jaay jën tailleur bi caméraman bi ñëpp ci am responsabilité kon loolu mooy samay kàddu ndam yàlla moo ko yor waaye sañ na maa jug góorgóorlu ci ngir mu am ndam mais mësuma garantir nit ndam parce que yoruma ndam contexte politique puisque kër da nga fay nekk di joxe sa dépense nga far fii say doom far fii démocratie moo andi loolu mooy nit ki ku ci neex sañ ngaa ànd ak moom su ma demee ba bëggu maam ñoom gis ni sañ na maa benn sama yoonu bopp yàqul sama diggante ñoom dara ñoom ñëpp muy Mouhamed Cissé sama mat la sama xarit la sama lépp la yow xam nga nañ demee ña ci des ñëpp loolu dox suñu diggante ñoom mais quant à ci politique amatuma ci kilifa bu dul sama bopp